gi mooy yoneen lay lay la sey naa limaamul maadiyoo mooy yoneen alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi watawaasaw bil xaq ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm ak tawfeex di ñaan suñu borom boole ñu ko defal mbokk yi eh, seen mbokk Mouhamed Sène ñu gën ko xam ci Abu Ubayda moo leen di nuyu eh, di leen ñaanal jàmm ngir ñëw rek leeral lenn ci diina ji nga xam ni bokk nan ko mbokk yi dañuy ubbee sunu kàddu kàddu borom bi subhaanahu wa taala muy wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar borom bi subhaanahu wa taala mu ne yéena xeet wi gën ci xeet yi li ko waral nag mooy da ngeen di digle lu baax di tere bon kon ngëneel gi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala def na ko ca xeet wi mooy sax gi nga xam ne dañ ko sax di digle lu baax di tere bon ba noppi jiitu ca jëf lu baax loolee taxawe ko waaye itam jiitu ca bàyyi loolee nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala tere na ko borom bi subhaanahu wa taala wax ba tey mu ne waltakun minkum ummatun yad'uuna ila alxayri ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar borom bi subhaanahu wa taala mu ne na am ab kuréel ci yéen ñoo xam ne dañuy tere lu baax dañuy tere lu bon di déglu lu baax eh, su ko defee nag comme que déglu lu baax ak tere lu bon farata la boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko farataal ci ñun ñun ñëpp ñu bokk ko am na ci ñenn nag ñoo xam ne war nañ jug taxawe loole te mooy li borom bi subhaanahu wa taala wax léegi wa takum minkum umma na am ci yéen ñoo xam ne dañuy jug taxawe loole ndax lu ñëpp bokk bu ko ñenn nañu taxawee dafay wàcc e, ñi ci des su ko defee mbokk yi diine joojee ñu bokk xam ngeen ne e, saa su nekk rek dana am ñoo xam ne njub moo leen tax a jug dana am ñoo xam ne daanu jaar fa leen yàlla akub yonentaam jaaruloo waaye dana am ñoo xam ne daanu jeng jëm ci yeneen pas-pas jëm ci yeneeni gëm-gëm jëm ci yeneeni jëfin yoo xam ne wuute nag eh, jëfin ak pas-pas yooyu nga xam ne moom leen alxuraan ak sunna jàngal donte sax ba tey dañu askanal seen bopp ci diine jooje te mënuñu ko génn wante nag eh, loole nga xam ne dañ koy fas ak di ko gëm ak di ko jëf eh, nga xam ne bokkul ci diine ji doon ay shubuhaat yii doon ay lënt-lënt yii doon ay euh, pas-pasi euh, kufru yii doon ay jëf yoo xam ne dafa wuuteeg jëfi jullit yenn yi ñu jële ko ci nasaraan yi yenn yi ci yahut yi yenn yi ci yeneeni pas-pas ci yeneeni kuréel mbokk yi yooyu nga xam ne dan koy jël di ko ci diina islaam ji am ay mbokk yoo xam ne yàlla tàggat na leen saa su nekk ñu jug di leeral loole di génne loolee nga xam ne moo ci bokkut di leerale nit ñi li nga xam ne moom moo ci bokk yooyu nga xam ne mooy lënt yi nga xam ne da cee bokkut te gëm ko rek day génne nit ki ci diine gannaaw ba nga xamee ne gëm na te mooy lii nga xam ne laayeen yi ñoo ngi koy woote woo te mooy an nubuwa di woote woo ne eh, seen waa di limaamu laay a yonente la te moom moo jëkkoon woote loola mbokk yi loolee dafa am ci bokk yi koo xam ne xëy na ñun ñëpp sunu taxawaay mooy leeral sunu taxawaay mooy leeral lépp loo xam ne alquran da koo leeral da ko wax leeral lépp loo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam da ko wax jottali seen kàddu mbokk moomee de maam góor njaay bokkoon ci ñii di taxawe loolee di leeral e, li nga xam ne moo bokk ci diina ji ak li nga xam ne moo ci bokkut sukkandiku nag ci kàddu borom bi subhaanahu wa taala ak xadis yonente bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi oustaz maam góor moomee eh, dañ ko eh, porte plainte yóbbu ko ci li nga xamante ne moom mooy yoon lan moo tax mooy da doon weddi ne laayeen yi kat woote gii ñuy woote woo du dëgg te loolee mu weddi ne du dëgg alquran moo ko weddi sunna si yonante bi alayhi salaatu wassalaam moom moo ko weddi ndax borom bi kaana muhammadan muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatama annabiyin borom bi subhaanahu wa taala mu ni muhammad mii day du bàyyu kenn ci yéen waaye ndawal yàlla la te moo tëj ak yonent moo tëj yonent yi kon gannaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam borom bi subhaanahu wa moom moo ñu wax ne ak yonente du wàccaat kon képp koo xam ne gëm nga ne ab yonente dina dikkaat ci jamono yi kooko weddi nga yàlla ndax da nga weddi alquranul karim kon limaamu laay lii nga xam ne moom la woote woo ne ab yonente la képp koo xam ne gëm nga loolu na nga xam ni weddi nga borom bi subhaanahu wa taala weddi nga eh, kaddu borom bi subhaanahu wa taala te loolee daf lay génn ci li nga xamante ne moom mooy diine eh, mbokk yi oustaz maam góor nag buñ ko porté plainte loolu du tax ñun ñu dellu ginnaaw du tax ñu bàyyi du tax ñu noppi waaye tey nañuy gën a wax li tax ñuy gën a wax nag mooy ñun ak sunuy mbokk ñoo fi nekkandoo sunu mbokki jullit ak sunuy mbokk deret ñun ak sunuy wayjur ñoo fi nekk ak sunuy dëkkandoo ak sunuy mbokk kon duñ leen bàyyi ñuy gëm di fas pas pas yoo xam ne dafa wuuteeg lislaam pas pas yoo xam ne ëllëg leneen mën na leen ci jural ci mbugalum borom bi subhaanahu wa ta'ala mbokk yi ustaz maam góor li mu wax waxewul kàddu boppam waaye dafa jottali kàddu yàlla dafa jottali kàddu yonante bi alayhi salaatu wasalaam du moom moo weddi laayeen yi waaye yàlla moo leen weddi yonante bi alayhi salaatu wasalaam weddi leen moom mu ñëw jottali weddi gi yeleen yàlla weddi jottali weddi gi leen yonente bi alayhi salaatu wasalaam weddi mbokki julit yi kon weddi googu dañ ko teg fu wóor mbokk yi gannaaw yonante bi alayhi salaatu wasalaam ab yonante du ñëwaat kon lii na ngeen xam ne du tax ñu dellu ginnaaw benn yoon du tax ñu noppi euh, bu fekkente ne jàpp mooy tax ñu noppi kon ma xam ne di ngeen jàpp ba sonn waaye kenn duñu noppi bu fekkee da ngeen di def nag ku jàpp ku wax ne limaamu laay du ab yonente weddee ko ci alxuraan weddee ko ci sunna ngeen jàpp tëj kon di ngeen tëj bu sono di ngeen feesal kaso yi waaye dund noppi dinañ ci wax ndax lu nu yàlla wax loo dañ koy wax lu nu yàlla weddiloo dañ koy weddi lu mu ñu gëmloo dañ koy gëm mbokk yi loolu amul luñ ciy hésité amul luñ ciy xalaat amul luñ ciy xool amul luñ ciy ragal wallahi amul luñ ciy ragal lu nu yàlla weddiloo ñu weddiloo ñu weddi ko amul luñ ciy ragal amul luñ ciy bàyyi xel amul kuñ ciy xool mbokk képp koo xam ne gëm na li limaamu di woote woo wallahi képp ku ko gëm weddi nga yàlla di dafa leer nañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam dikk na ci ab xadis muy lim ay turam ba yegg ci ne ana al aqibu allazi la nabiya ba'di man may ku mujj ki nga xam ne ab yonente du wàccat sama ginnaaw waaye yàlla wax lii mu leer nañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax lii mu leer nañ képp ko woote waat ab yonente sama ginnaaw weddi nga yàlla waa nga ñëw jottali loolee ñu jàppale tëcc ñi la doo ko fi wax pour pourquoi doo ko fi wax lii mooy wane ne ñoom li ñu nekk du dëgg ay caaxaan ay fen la ay nar la ndax bu fekkoon li ñuy wax dëgg la amul benn diine joo xam ne mas na fi wàcce di woote ay nit weddi la ñu jàppale di leen tëj masul am tàmbale ko ci yonente yonente yi ba fii mbooleem yonente yi yàlla mës yoon ni ñu ñëw fii di woote ay nit weddi nañ leen ñii ñu rey leen ñii ñu tuumaal leen ñii ñu sacrifier leen ñii ñu wax leen lu bon ñii ñu teg leen ay tuuma ñii ñu jaxase ak nit ñi ñii ñu wax leen ni leen li ngeen andi du dëgg yéen a ko créé seen bopp yéen a ko fent te taxul ñu jàpp kenn porte porte ko plainte wala ñu jàpp kenn dóor wala ñu jàpp kenn di rey waa kon tey bu demee ba nit génn ne day woote ab yonent ñu weddi ko teg ko ci alxuraanak ak sunna ay nit ñu koy défendre di jël nit ñi di tëj ak di porte plainte teg ko fan kon loolu day gën a jëmmal li ngeen di woote ay caaxaan la du dëgg mbokk yi loolee oustaz góor wax mooy dëgg loole mooy kàddu yàlla loole mooy kàddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku ko gëm gëm nga yàlla ku ko weddi weddi nga yàlla képp ku weddi ni limaamu du ab yonente képp ku weddi ni limaamu du ab du yonente bi sallallahu alayhi wa ci boppam kooku képp ku weddi ni ruuxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëmmam ñëw ci jëmm ji képp ku weddi loolu weddi nga li la yàlla weddi loo képp ku weddi loolu nekk nga ab jullit waaye képp ku ko gëm gëmal ni weddi nga yàlla ako yonentaam ab kéefër nga yaa ngi ci kéefër bokk jullit loolu dafa war a leer ñu xam ko bañ ci am benn hésitation parce que yàllaa ñu ko weddiloo yonente bi ñu moon ko weddiloo duñ ci am luñ ciy hésité mbokk yi dañuy wéy di ko wax dañuy continuer di ko wax ak lu ñu ci mën a fekk ndax du dëgg tegewul ci dëgg Sénégal nag li moo fi yàgg raayalanti ginnaaw yor jikkoy naafiq kenn du wax sa moroom dëgg kenn ku nekk nepp ci eh, li nga xamante ni moom la sa moroom di woote donte sax du dëgg beneen bi mooy mbokk yi sénégalais yi dañ leen yàgg gëm loo ne bul weddi ku weddi da ngay torox boo weddee da ngay dof boo weddee da ngay ñàkk boo weddee dangay ngay mel nii da ngay mel naa loolu dem ba nekk ci seen xol yi ñu gëm ko di ko doxi ku fi woote woo ak loo mën a woote woo moo xam da woote woo yàlla moo xam da nga woote woo malaaka moo xam da nga woote woo jonante wala jinne loo fi woote woo dina la nangul lu lay wax bu ko kenn weddi gëmal li nga gëm te bàyyi danga koy wejji ba noppi eh, nekkaat ci di ko leeral déedéet maanaam affaire bi mbir mi weesu na ñu yem ci weddi ko rek déedéet weddi rek dafa simple dañuy weddi ba noppi wéy di ko leeral ngir ñeneen ñi wan koo wattu waaw ngir ñeneen ñi man koo wattu ndax boo ko weddee waroo yem ci sa bopp boo bëggalee sa bopp la baax danga koy buggal sa mbokkum jullit te baax la nga leen di bëggal li ci jiitu mooy sorolee leen bépp pas-pas bu wuuteeg lislaam kon duñ ci noppi loolu nag dañ lañ ko yàgg gëmloo dangay gëm li nga gëm noppi ci leneen li mooy ndax li fi nekkoon lépp kenn ku ci nekk pas fas nga lu wuuteeg lislaam kon li fi mën a am rek mooy leen ci ginnaaw noppil ci li ma yor yow nga noppi ci li ma bu ci wax waaw taalibe ñun leen buleen leen weddi bu leen weddi bëgg a jël benn régal àttewoo ko ci lépp mooy xéewalu yàlla yaatu na xéewalu yàlla yaatu na xam nañu loolu wante ki ñëw di woote woo ab yonent kan moo nuy ne kii yàlla moo ko yónni ki ñëw ne yonente bi moo ko jox nangam lan moo nuy xamal ne yonente bi moo ko jox loolu alxuraan wàccetul di firnde dara xadis wàccetul di firnde kon mënuñu ko gëm dañ koy wàcc sànni ca àll ba pare weddiloo ko nit ñi mbokk yi raayalante ginnaaw googu nag li ko waral mooy lan mooy dafa am pas-pas yoo xam ne ñoom sufiyanke yi dañ koo yàggee di fas pas-pas yoo xam ne du tegu ci alxuraan du tegu ci sunna mënuñu ko andil genn firnde ci alxuraan wala ci sunna su ko defee ñoom ñëpp bu nu gëmee loolu kenn ku nekk woote woon yàlla jox na la nangam ci xaybu wala yonent bi sallam jox na la nangam ci kumpa tudde ko baatin ñoom dinañ mën a weddente seen biir ndax koo weddi moom it moo weddi la la yor te ku nekk xam na ni eh, waa ji lii mooy woote wu ab yonent ak la Cheikh Tidiane woote daanu ko benn la waaw kii dafa ñëw ni ruuxu yonent bi moo toxoo ci jëmmam ñëw ci jëmmam moom Cheikh Tidiane kazalika noonu la dem def keroog ba fi yonent bi sallallahu alayhi bàyyi ko ba mat ay junney at mu dikke ne yonente bi moo ko dikkal jox ko jaamu yàlla jox ko jaamu yàlla loolu koo xam ni ab tiijaan nga mënoo weddi limaamu li ndax boo weddilee ñii lii ñu weddi leen lële te noonu la demee ci mboolem turuq yi noonu la demee ci mbooleem tariqa yi fi nekk pas-pas yi ci nekk moo tax dañu raaya leen ci ginnaaw kenn du ci wax mën nañ ko weddi nag ci biir wante ñëw taxaw fësal ko leeral ko leeralal ko nit ñi ño xam duñ ko def Alaaji Malik mi ngi fi woon Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi fi woon keneen ak kene ñoo ngi fi ndax am na kenn ku ci bind ab téere leeralal nit ñi ni wattu leen pas-pas yi laayeen yi di woote woo ndax dafa wuuteeg alxuraan ak sunna amut ba jamono jii nii seen taalibe yi fi nekk amu ci kenn kuy def loolu ñi nga xam ne ñoo askanale seen bopp ci ahlu sunnata wal jamaa ñooy taxawee loolu ndax kenn tënku leen dara tënku leen lépp lu ñuy wax dañ koy delloo ci alquran ak sunna kon ñooñu danga koy leeral mu leer naññ te duñ ci am benn hésitation mbokk yi lii lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nag yonent bi nee na bu ma fi jógee wuute dina bare sama ginnaaw waaye nag maa ngi leen di jox solution su ngeen bëggee mucc si woote yooyu ak ñalla yooyu delluwaat leen ci alxuraanu sunna ngeen tënku ci te wattu yooyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee woon na sama ginnaaw dina am ay nit ñu ñëw di woote woo yonent daanu mat fanweer di woote woo ak yonent mu ne ñoom ñëpp dañuy fen ñoom ñëpp ñu dëgg yonente bi moo ko wax yonente bi nee na ñoom ñëpp dañuy fen waxuñu dëgg ñoom ñëpp ñi nga xam te ne dañuy woote woo yonente waxuñu dëgg te ñii la ñu boole dafa bëri boole ñi ñooy yonente ñooy mahdu ak yeneen ak yeneen dara ju ci du ci dëgg boo ko delloo ci alxuraan ak sunna wérut kon mbokk yi ñi weddi lii teg nañ ko fu leer teg nañ ko fu wóor du ay làmbatu du ay jeneer ñoom ñi koy gëm nag mënuñu la andil génn firnde du ay làmbatu ay fëlëx fëlëx yi dugg fii génn fii wax fii képp nañ lay andil képp koo xam ne nag bëgg nga sàmm sa pas-pas comme ni la ko yàlla sante comme ni la ko yonent bi sallallahu alayhi sante mbokk yi na nga weddi bàyyi pas-pas yi nga xam ne danga koy gëm te du dëppook lislaam bokkul ci lislaam bokkul ci lislaam waaye lu la wax nga gëm doo seetantal doo xool ba xam lii dëppoon ak lislaam war naa ko gëm wala waruma ko gëm li ko waral nag mooy mooy suñ leen waxee ni leen bu leen weddi ñoom ñu gëm loolu mooy lan mooy palace bi nga xam ne yàlla daf ko waroon am ci seen xol yi mooy palace boobu dañ koo xaaj lenn la ñuy yokk yàlla lenn lu ñuy yokk ay nit kon bu fekkente ni am nit ki am na lu mu gëm ci nit bu ñëwee ni ko bul weddi kooku du du weddi ndax day ragal day ragal ni kii bu ma ko weddee fokk dana am loo xam te ni dana ma ko man lore wala dana am loo xam ne dina ko wàññee ci man dana ko wàññee ci man yooyu yëpp dañ ko gëm. yooyu nag du dem ak pas-pas bu wér du mën a ànd mbokk yi diine ak gëm weddi ak saxal ñoo ànd waaye bu fekkee yow da ngay gëm rek doo weddi dara ba noppi yow dangay gëm ba noppi soog a dem di wuti tegtal senegal lool noon gëm dañuy gëm ba noppi soog a dem di wëri ay dalil fu ne nga dugg téere bu nekk nga dugguf fa fu ne nga dugg fa génn kere yi ay wax boole ay wax fent yoon wu nekk nga dem fa jël fa ay pas-pas jël fa ay wax boolente te doo mën a andi lu teg lu leer lu concret ndax la da nga gëm ba noppi dem di wuti tegtal te jullit bi warul defe noonu jullit bi daa war balaa muy gëm alxuraan ni ko lii ngay gëm xadis ni ko lii ngay gëm mu gëm loola nga xam ne bu ko xasee ba gëm leneen du ko mën a weddiwaat mbokk yi nañu ragal yàlla rafetalaat sunu pas-pas beesalaat ko leeralaat ko tënk ko ci alquran ak sunna lii la nu yàlla sant lii la nu yonente bi alayhi salaatu wasalaam sant lépp lu nu fas lu wuuteeg lii ñoo ngi nax sunu bopp ñoo ngi ci ay caaxaan ñoo ngi koy dénk mbokk yépp ñu gën a taxaw nag ci woote woo ci daj ji lépp loo xam ne bokkul ci diine ci ci ay baatil yoo xam ne dañ koy woote woo ay yeneen ak yeneen dañ daj lépp ab yonentaak mahdeeg ñépp ci yam lu la alxuraan weddiloo da ngay weddi ne du dëgg sunna weddiloo nga weddi ne du dëgg mbokk yi loolu mooy dëgg lii mooy dëgg kon ñoo ngi yamal foofu sunu kàddu di ñaanal ñëpp jàmm yal nañu yàlla defal tawfiq defal ñu mucc wañu dëgg ba ñu xam ne lii mooy dëgg ñun ñu topp ko mu dimbali ñu topp ko mu wañ ñu caaxaan ba mu wañ ba mu xam ba ñu xam ne lii mooy caaxaan mu dimbali ñu topp ko yal na yàlla nasaxal yal na yàlla nasaxal mboo ci noon yi yàlla nasaxal seeni pexe ku fi woote woo yonent ku fi woote woo leneen lu wuuteeg lislaam yal na la yàlla toroxal yal na la yàlla xawi sudur guddeeg bëccëgu ndar kàmb ñëpp di ci teg seen bët asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ka dimba ba mu feeñee maa ka dimba doon araab doon woote diine dellu feeñ fii si yoo fi soodaan marhaban yaa xeyra daan